rafetlu seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV fii ci Mbacke Bawol multi service mbokk yi am mbégte bu amul àpp tey ci seen ànd jotaay ak euh, kenn koo xam ni waajur la ci ñun quand même dootuñu ko présenter aussi sur la culture sénégalaise dootuñu ko présenter euh, ci Pikine mais aussi dootuñu ko présenter ci njabootuk euh, groupe bi di Faramareen muy suñu papa père Tafanaar ñuy am mbégte tey fii ci Mbacke Bawol multi service ñu am ci ama ak yow jotaay xanaa rek di la gërëm di la jaajëfal quand même ngërmaane bu amul àpp vraiment si jotaay beeg disponibilité bi waaw maa leen di gërëm di leen nuyu du nuyu waa seen bës yëpp du nuyu Sénégal yëpp. Mhm. yëkkatil micro bi tuuti di masawu mboolem famille Thione Seck. Mhm. famille Diaga di leen jaale di leen sigil ndigaale di ko jaale àdduna yëpp. très bien alors ni ki alxames bi passé la am tiis bu dal kenn ci sañ njaboot ci njabootu Papa Thione Seck te nga amoon bu baax a baax kóllëre ak moom sa doom ji di Momy Seck tey la am juróom-ñetti fan bi ko fi suñu borom jëleeg léegi euh, ban témoignage nga ñu mën a defal ci moom. waaw témoignage bi ma ciy def mooy bi ci àdduna yëpp def. Mhm. jigéen la joo xam ni dafa réer ñëpp. teer yëkkatil micro bi tuuti dafay jigéen joo xam ni. jigéen ju réer ñëpp la. lëlu te mënoon a bàkku mënoon a wane boppam mënoon def comme ay moroomi jigéenam yu am pouvoir ndax nag yàlla may na ko kuy sa borom kër bugaan dara la ci réew mi. tout kuy sa baay Thione Seck dara la ci réew mi kuy sa frère Wally Seck ne woo wane woo. kenn lu tax. mais loolu yëpp da koo teg fële am ngëm-ngëm bisam bi keroog wane na ko. Mhm. kon kooku li ñuy ci moom di ko ñaanal yàlla bis boobu mu am. jullit yu bari soxla nañ ko. c'est ndax vraiment mbooloo moomu ko gunge. Mhm. du ñàkk ci yàlla rus. kon ñooñu. Mhm. dañ koy ñaanal yàlla. yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe. vraiment di ko masaw di masaw waa këram yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. Mhm. surtout jaaga. su jaaga alors nga wëllëre wante woon ak kii di waajuram bu góor ñuy naan yàlla terale ko aljana moom aussi Papa Thione Balago Seck lan ngay fàttaliku vraiment ci valeur humaine yu rafet yi nga xamee ni ñu bari seede nañ ko si Momy Seck di dëggal ni kii di papa moo ko ko incliné woon muy Papa Thione waaw gis nga yar sa doom preuve baa ngi nii li da koy wone mhm. Thione ku ne xam na ni lu nit mën di wax ku ne xam na ni yar na ay doomam waajuram bu yaayu xale yi ku ne xamal na ne jàppale parce que am na loo xam ne bu ko sooy doom melee sa soxnaa la ci jàppale ba xale yi bewuñu réewuñu wanewuñu kon lii dañ koy sant yàlla di ci sant nag seen waajuru jigéen mm-hmm. ginnaaw yàlla nag am na ci lu bare bare bare bare bare bare lu mu def ci ay doomam. d'accord kon kooku dañ koy ñaanal yàlla yàlla nag fi yàlla bàyyi ba mu fekkee njëriñu ay sëti sëtam. amiin yaa rabbi eh, alors ban ban sentiment ngay am lu jëm ci sa doom bi nga xam ne mooy Wally Seck ñëpp aussi xam ne am na complicité bu doxoon ci digganteem ak Moumy Seck ba ñenn ñi di wax naan euh, da daan faral di wax ni sax Moumy taxawaayu yaay la taxawee ci moom ban sentiment nga am absence su Moumy Seck ak taxawaayu kii di Wally Seck. waaw Wally yaayam la ñàkk moom yaay la ci moom. Mhm. xam nga dafa am ñoo xam ne dañ lay taxaw di fés am ñoo xam ne dañuy taxaw sa ginnaaw téye say tànk ba doo àgg suuf moom it foofu la àggoon nag waale. Mm. nekk waa waajuram nag doon na magam. Mm-hmm. mais doon na waa waajuram jàppale ko lool ci ñun ñu yàgg ak waale bëgg waale xam kan mooy waale xam nañ moom yi mm-hmm. bu rëy bi mu joué ci waale Seck kon dañuy masawu waale di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may lu ko wuutu. amiin ci moom parce que poids bu mu ngandee ngandee ngandee ngandee la manqué le mhm. moom mooy moomi boobu. d'accord alors lan nga ñu mën a wax ci moralu Wally mu ngi doon wàcc lu am solo album international ñu doon yaakaar ni sax disque d'or mën na si juddoo et tout ndogal bii ñaw dal si sa kaw mais ussi dal ci kawam ndax jàpp nga ni vraiment euh, dina mën a comme ni ñu koy waxee en quelque sorte euh, remonter waat jugaat ci li nga xamee ni moo dal si kawam. non Wally nit ku nit ku gëm yàlla la. Wally gaynde la Wally gaynde la te gëm na yàlla. te yàlla nag moom mooy joxe mooy jël su la joxee da ngay bég lool mais bu jëlee bégal waale foofu la toll. Mm-hmm. lii metti na nag torop waaye jotewut ak liggéeyam dara incha allahu rabbi lépp lu war ci liggéeyam. Mm-hmm. dana ko def ba àdduna yëpp xam ne waale mii am jom la ku nangoo liggéey la te liggéey na. d'accord waaw waale liggéeykat pire la te ñeme na. Mm-hmm. xam nga xale bu amee am fit am ngërëmal waajur. nangoo liggéey bu ko kenn utal yemukaay. Mhm. fu a mën na fa te lii mu mhm. lii lu ndaw la ci waali bu amoon leneen lu këpp waali loolu lay jublu mais lii waali da koy faxas. d'accord. alors tristesse su absence su Pape Thione famille bi ñu bari ñu ngi leen di xalaat jàpp ni vraiment xëy na bëggoon na famille wala doon na taxawee famille boo xam ni absence am doon nu joué tey ñu ñëw ah, ki nekkoon seen mag ñoom waale tamit mu jige fii muy soxna mu Seck jàpp nga ni jamono ji dina yomb moralement pour xale yi de façon générale bu dul waali ñoom Babacar rek Mouhamed Seck ki nga xam ne mooy Seydina Alioune Seck pour ñu pour ñu surmonter en tout cas deux ans ci lu yàggul tey ñu ñëw seen mag bu jigéen jóge fii. kan leen fi indi yàlla. yàlla moo leen findi yàlla mi leen findi xool ki ko neex mu jël ko yàlla saa bu jëlee dara am na lum la fa tegal lu ko wuutu. Mhm. Aline Seck Mohamed Seck am na ñu ngëm-ngëm Mohamed Seck keroog bu muy tudd imaam ñaata imaam moo fa ñëw témoin ko xam na kan mooy yàlla. Mhm. ñooñu gëm nañu yàlla gëm nañu yàlla de loolu loolu du seen problème metti na nag. Mhm. ku bokk ci yow jóge ci yow. loo dëgër dëgër dëgër di nga am foo koy yégee waaye nag ñoom xam nañ ne yàllaa leen ko joxoon mhm. yàllaa ko jëlaat yàlla mi ko jël yàlla na ko jël ci jël na ko ci jëlin bi mu bëgg yàlla na ko defar li gën ci moom ba pare defar ko li njort yëpp di di di njortu. amiin mooy yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe. Mm-hmm. ci barke yonent bi yàlla mën na ko. amiin yaa rabbi yàlla mën na ko. d' accord alors père li ma la bëgg laaj nii c' est vrai que c' est peu confidentiel parce que mm-hmm. euh, Wally dafa toog télé sax di ko di ko seede di wax mm-hmm. ni ay ku mel ni ñoom Aïcha Rasoul ak yooyu dañoo jullite. alors famille Thione Seck wala doomam yi rawatina jigéen ñi dañ leen di faral di toog ni dañoo jullite dañoo bëgg yonent bi dañoo ay ibaadu en quelque sorte la ñu bëree bëri di gis ci ñoom loolu lan nga jàpp ni moom moo ko def si ñoom. waaw mais dafa xam li yàlla wax. boo juree say njaboot. yar leen ci yar leen ci diine jàngal leen alxuraan coon mi nga woon ci beneen waari waaye ku ne xam na ne li ko war ci digganteem ak boromam def na ko ci ay doomam. Mhm. jàngal na leen alxuraan teg na leen ci yoonu siraatal mustaqim looloo indi seen ngëm-ngëm bii ñu am ñoom ñëpp ku ci ne. Mhm. foo ko woo dala fay wuyu ñoom ñëpp am nañu ngëm-ngëm ci diine te teg ci diine ba kenn. dérapé wu ci jigéen ñooñu nga ci gis nii ku boo ci buy julli ci loo ko laaj ci julli dala koy wax. Mhm. loolu sant yàlla la. yar nañ leen ci diine yar nañ leen ci diine yar leen ci lislaam teg leen ci loolu moo tax ñu tegu ci nii. loolu rek moo tax ñu tegu ci lislaam buñu ñu leen yaru ci diine. Mhm. duñ ci yaru moo tax boo juree sa doom école yëpp baax na. waaye defal ci moom diine boo defee ci moom diine doo ko rëccu. te papa Thione defoon na loolu. ci ay doomam defoon na feeñ na ci ay doomam. keroog bi Mohamed Seck di di di tudd. mais ñaata imaam a fa toog témoin ko imaam yooyu fayu leen pour ñu ñëw témoin ko. lañ ko gis ca jàkk ja. ak mm. heure ya muy ñëw ci jàkkee ak heure ya mu mm. fay jóge la muy def ca jàkk ja loolu lañ ko témoin. Mm-hmm. loolu kan kan moo ko def. Mm-hmm. seen bàyyee ko def ci ñoom. d'accord ba pare nag seen yaay jàppale leen ci ndax bu la yeewoon xale yi ne leen jóg leen ba yaay ji leen bàyyil xale yi day bàyyi xale yi doom dafa fort trop. d' accord alors très bien père dafa am loo xam ni bëgg naa la ko laaj parce que dañu gis Wally ba muy door a euh, lu bari ci ay affiche ay journée yu magam yëpp dañu daan gis kii di Moumy Seck ci côté am mu ko daan jàppale ci communication ñu yu demee noonu ñu bari doon jàppani sax xëy na booba euh, taxawaayu yaayam la taxawee. man hmm. nga ñu wax un petit peu lan moo taxoon engagement bi Moumy sekk doon jël au début ba muy gën a métti mu jëloon ko si wetu Wally. rakkam la su baaxal àdduna. mooy lii ko dal tey. Mhm. waaye su bonee lu ñuy wax ana ay bokkam bokk kenn da cee gën kenn da cee jiitu sa ndey bokk kenn da cee jiitu sa mag yow bokkal ndey ak baay. loolu la xamoon mu ñaqu uuf rakam tuxal yaayam ne ko yaay léegi man nga demal nga toog lii kii maa tolloog moom jamono. Mhm. ànd moom ci jamono uuf ko jàppale ko ba yàlla suturaal ko ba waale egsi fii d'accord. kon mu mel ni en dox de taxawaay bi gëmoon na te gëmoon na Wally ak li nga xam ne ni xëy na engagement bi nga xam ne amoon na ko musicalement. non moom it romb na gëm gëm Wally tax. Mhm. mais coon jurul Wally rek. coon. Mhm. du Wally kese la jur. mais lan moo tax moom it takku jàppale Wally parce que ci lii mu suivre xam na ni kii gaynde la te lu mu wuti da koy am Wally daa neex a jàppale daa neex a uuf. ok nit bu déggee ndigal am kilifa fonk waa juróom jàppale ko jafewul te looloo dal Wally. d'accord. alors lan nga ñu mën a fàttali un petit peu ci seeni i ñoom ñaar xam nga ni ñëpp xam nañu ne ay début Wally quand même bokk na euh, ci début musicien yi nga xamee ni xëy na difficile na ak yenn accusation yu doon am et euh, lan nga ñu mën a wax looy ko ci moment yu difficile yooyu nga xam ni Wally jot na ko dund wala en ko sorte loo jotu dund la ak Wally ak kii di Moumi Seck. non xam nga Wally. Mhm. lu ne taqal nañ ko ko. waaw. taachal nañ ko lu ne. waaw waaye lu dul dëgg du yàgg lépp luñ ko mës a taqal. yàlla setal na ko ci. Mhm. ñi ko jur di ay waajuram ak ñun ñi ko jege xam nañ kan mooy Waly Seck lépp luñ ko mas a wax feeba fan lay mujj. Mhm. am na loo xam ne mënoo koy jëf di am lu baax. absolument kenn du ji lu baax bon di am lu baax. lu baax rek nga mën a def lu baax fekk si la mhm. waxe yàlla du tuxu de. te nit tuuti na ci tuxal waxe yàlla. kon waale bu nekkoon ci mbon bon wala mu nekk ci jubadi yàlla weer na ko bu yàgg. fii mu àgg jub nangoo liggéey am fulla am fayda moo ko fi àggale waaye nag negam yonent gën ñëpp mm-hmm. ñii bañ ñi nangu mm-hmm. waaye waali mu tuuti mii di wéykat juddu démb rek mën naa ba fexe ba ñu bëgg ko très bien mën ta nekk ñii dañuy bëgg loolu saxu ko jik mm-hmm. na ñuy bëgg ñii di bañ mu xool nag ci ñi ko bañ fas jom teg nee ñu ko bëgg ànd ak ñoom ci ngor soo bëggee dem xoolal ñi la bañ la tax ñu bañ la nga effacer loolu liggéey ñi la bëgg bëgg nañ la ba pare. c'est clair. bëgg. Uh-huh. bëgg nañ la ba pare waaye liggéeyal ngir ñi la bañ. waaye ñaata nit ko bañ mujj wëlbatikuwaat. waaw ñaata nit ko weddi woon mujj wëlbatikuwaat. Mm-hmm. man mii musuma gëm waali barki démb rek wallaahi azim. Mm-hmm. sama bàmmeel laa taw dama toog benn waay. mu ne ma dafa dajeeg waali Gambi benn animateur la mu ànd ak nee nañu jouer billard waa ji ne ko waale ne ko non mais doo joué mu ne ko man taluma joué ndekki xale yi laay wut. Hmm. waale ne ko kon arbitré la nee na bi mu arbitré ba pare. Hmm. biyaar bi nee na ma jour boobu la ma nee na ma ñi gënoon ban waale maa ciy payé moo ma wax de wallaahi azim sama hmm. bàmmeel laa taxaw. nee na bi ñu joué ba pare waale dafa lamb poosam génne cent trente mille franc ne ko comme ndekki xale yi ngay tal am demal jox xale yi. ndeysaan. nee na boobu ba mu koy def. Mm. waale ne premier parti la doon joué ba baayam moom mu ànd ak Ousa. est-ce que moo ma wax de. d'accord ba mu mënul dara la doon jéem ci la mu mën di ko séddale jaami yàlla yi. très bien. le message est passé muy Père Tafanaar mënuñu bañ wax lamb Pikine aussi te duñu la tudd vraiment jamono ji mën nañu wax ni en tout cas lamb ji gën a ñu bare bari ci amateur yeeg mbër yi bokk na ci combat bi war a dox ci diggante Ama Balde ak Modou Lo Ama di sa doom euh, jamono ji nan ngeen ni préparé Père combat bi ak. tension médiatique en quelque sorte bi nga xamee ne mu ngi ciy am. <laughs> non xam nga tension bi. waaw yi la c'est très normal. mais Ama changé wul dara dara dara dara ci ni mu doon préparé combat mhm. premier combat am ko préparé ba ci nii mu jubloo ci roi des arènes amul benn changement ci moom. Ama li ci moom ci moom la nekk. Mhm. ngëm-ngëm bi ci moom ci moom la nekk. fulla ji ci moom ci moom la nekk jom ji ci moom ci moom la nekk fit ci moom ci moom la nekk amul dara lu muy changé ci ko ci ci ci làmbam wala nii wala supporter nag c'est très normal ku ne far fi nga far ku ne wax. Mhm. ñii xiiru fii ñii xiiru fii c'est très normal. d'accord waaye gaynde gi. Mhm. xam nañ kan la. d'accord alors yow ngay ngay papa ci xale yi ñu bari ci amateurs yi di ñaawlu ñenn en quelque sorte ñi ñuy gis nii ñuy wax en tout cas mel ni dañoo jege jege amaa Baldé lu yàggul dara am na benn xale bi génn di wax bay tudd waajuru Modou Lo ñu bari di ko ñaawlu père jëf yooyu noonu jàpp nga ne vraiment yéen mag ñi lu ngeen war a cautionné la. waa dafa juum Ama Baldé du wax loolu. Hmm. déedéet tey Ama buñ ne ko woon sirélika soo ko génnee bàyyi Modou Lo dellusi ci jamono barke Cheikhul Khadim mu génne ko joxe ko. bu ne kon miraasal sa bopp mu def ko kon kooku du lu ñaaw ci Baye Modou Lo kooku dañ koy ñaanal yàlla di ñaanal Falaye Balde suuf woyof seen kaw foofu la ñu toll xale nag xale la rek. Mhm. te ki ko wax du reewan day tax mu wax ko fukk xale ko dal rek mu juum mu waxee noonu mais ñun ñuy mag ñi rafetlu wuñ ko lu ñu ñaawlu la. Mhm. ba pare nag waxtaan nañ ci moom joxe na njéggalam wane na ne dafa juum. ñu ngi koy jéggalu di ko jégg di ñaan ay bokki ñam ko wax. Mhm. xale la rek bu wax ay waxam. lii làmb la rek. Mhm. jotewut ak ñee ñee nañ leen ñaanal yàlla. Mhm. fee ñu nekk gënal leen fii ñu jóge ci lool lañ toll. Mhm. bàyyi la ci ama bàyyi modloo bàyyi ama la bàyyi ama bàyyi modloo la kon foofu lu ñaaw xaju fa wax fa lu ñaaw xaju fa. d'accord làmb rek a leen boole te ku ne yaay may sa xaalis. nañ ko rafetal. ñoom seen biir ñaawaluñ ko kon ñun nañ ko rafetal. d'accord ñun ñi ànd ak ñoom. alors mais est-ce que du lii dafay jox raison rek euh, li Modou moo Modou Lo waxoon ci face to face bi ñu doon def ni Ama Baldé euh, ñi la entouré duñ ay nit en quelque nga baal ma ci wax ji nawloowu ma leen ndax it euh, genre parole yu mel nii du jox Modou raison ci ci li mu waxoon noonu. déedéet du ko jox raison xam nga lan am ay mag ñu ciy waxal. Hmm. mais Modou du mook mag ñi Modou Lo digganteem ak Ama Baldé ñoom ñoo seq contrat. nit nag soo ko jegee man ngaa waxee nu ne nit ku nekk nag ak fasa sa xalaat toll man du ma critiquer nit ki waxee xalaatam. Mhm. man de toute façon man nanguma ku ma gën a jege Ama da ba ma ko bàyyam di dénk lu tuuti la. waaye kaddu gu ñaaw. Mhm. du génne ci man ndax gisuma ko ci Ama pour mën koo wax keneen bu ko keneen waxee nag. xëy na njuumtee tax muy wax ko rek wala xër gu ëpp yooyu lay demee rek mais mais père c'est vrai que sa c'est très normal nga defar mais gis nañu du moom kese gis nañu ku bokk Pikine ci lu yàggul génn naan ku solul t-shirt Ama Baldé sax amatoo droit dugg Pikine ak yu demee noonu kaddu yooyu tamit quand même du lu bees ci ci ci ci waa kër Ama Baldé aussi. non non non mooy li ma lay wax rek xam nga Pape Sarr moom moo wax loolu. waaw mais Pape Sarr moomu mën na xam naa ci xolam boo xam ne mën na jënd ay t-shirt Modou Lo sax jox ay supporter Modou Lo lool loolu ay ay ay wax la yu. wax yuy jaay làmb defar làmb day c'est juste que ni. d'accord dafa bokk ci ñiy jaay làmb ji rek. parce que Pape Sarr am na kàddu réseaux sociaux yi xam nañ ko muy jaayale jàppale promoteur bi di jàppale mbëri pour jaay làmb ji. mais waxewu ko méchamment non non non waxewu ko noonu. Mhm. mais ñun ñoo xewle. Modou Lo xewlewul ñun ñoo dëkk Pikine ñoo uuf stade bi ñoo moom stade bi képp ku fi ñëw suñu gan nga. te ku am gan teral ko te Amadou Badoo la ku ñëw mu teral la kon dañ leen di ubbil bunt yi. Mhm. ñu ñëw ci jàmm ñu ànd ak ñoom ci jàmm fair play ci jàmm ama bëre ci jàmm daan ci jàmm ñu gunge leen ñu ñibbi ci jàmm. d' accord alors ndax dina yomb pour yéen ça fait cinq ans xëy na amul leen benn takkusaan bii tamit gis nga biñ ko dalee waaj ba léegi mënagul tout jàpp nga ni charge bii nii dina yomb bu dul Ama Baldé sax yéen fans si vraiment ngeen déchargé wu ci. mais ku man ngaa gis ku toog fukki fan. Euh. te lekkoo Ah. buñ la sampul ay butéel nga génn àdduna de ama toog cinq ans ah. di lekk di naan lan moo ko dérangé lamb la ama mën na toog dix ans mhm. mais bis bu tuuram jote la ko war ci tuuram dana ko def ba mu mat sëkk ama nit boobu la ama masta bàyyi lamb xanaa daa bëriwul ci géew bi. Mhm. waaye cinq ans yooyu mi ngi ci entraînement mi ngi ci ay contagam dañ koo fayul pour mu bëre mais mi ngi ci ay contact am contact du làmb la bëri la. d' accord accord am amul problème boobu. d' accord alors père yàgg nga ci làmb bu bu dul sax li li Ama Baldé nekk nekk sa doom tey boo ñu doon waxal euh, charge yi nekk ci nit nga war a am adversaire comme. roi des arènes ndax loolu vraiment tamit euh, nan la ñu war a encadrer mbër bi ba mu ñemee bis boobu war a am tàkkusaan jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy roi des arènes. jël jël la rek jël. Hmm. jël la rek. boo daanoo daanu nga. boo daanee daan nga. roi des arènes tur la rek. ok benn mbaxana bu ñu lay këpp sa bopp la rek. loolu jotewut ak jël dara. déggoo li ma la mm. ama ni mu doon préparé combat am yëpp. Mm-hmm. lay préparé combat bi ama fëkk yóbbuwu ko te xam na li mu bëgg xam na fi mu te kenn jëloowu ko nag moo def ay preuve ba ex fi fe egsi xam ne lii war na ko mën a jël mu ne day waaxu jëlali ko boppam ñun ñuy gunge lu ñuy def lu dul gunge ko mu jëli ko ñu ànd ak moom ñibbi. amul d'accord per bu amoon message boo bëgg a jëmale ci supporteru Pikine yi comme foofu nga nekk kilifa mais aussi ci waa parcelles yi aussi pour ñu mën a sauver bis bi bi nga xamee ne ñu bari nee nañu ñi ko war a njëkk a sauver yéen la waa Pikine lan lay doon. kenn fayuñu ama lañ fay. Hmm. kenn fayul parcelle Modou Lo lañ fay ñoom ñooy xeex ci géew bi ba bu ñu gaañantee police du ci am wàll tribunal du ci am wàll. mais ñi ci tuusi ku ci reyanteeg sa morom ñu jàpp jàppale def la ci kaso bi dara jaru ko. Mm-hmm. nañu wane yar. Mm-hmm. wane fulla wane ay teggin yaatal ñee te xam ne suñuy bokk lañ ndax ku ne am nga bokk parcelle waa parcelle am na ñuy bokk pikin. Mm-hmm. nit day xëy dem ngénte parcelle nit day xëy ñëw ngénte pikin. nit jaale gi ne parcelle nit jaale si ne pikin. Uh-huh. nit feebar na nekk hôpital parcelle nit jóge pikin dem seeti ko kon lii làmb la. ñun supporters yi. nañu solu ba jekk mbalagante mhm. fo ree kaf tàppante parce que loolu moo am li ci am solo mooy géew ba te Ama ak Modou Lo la ñu fay ñoom ñoo koy jëflante kon supporters yi nañu rafetal nañu def lu jaadu kenn bañ gaañ kenn kenn bañ a xose kenn kenn mm. bañ a wax kenn kaddu gu ñaaw ndax mbëri seen bopp waxante ñu kaddu yu ñaaw wax yu rafet la ñu waxante <coughs> pour jaay seeni kombaa très bien kon yow miy gunge rek loo ci xuloo yow da ngay gunge rek may gunge keneen di gunge ñun ñuy gunge nañu rafetal rek. très bien amul coow. te loolu ñuy wax wallaahi azim du yàqu Pikine Modou Lo dana ñëw ci jàmm dana ñibbi ci jàmm Ama dana ñëw ci jàmm dana ñibbi ci jàmm xale yi wax nañoo ñoom waa parcelle wax nañoo ñoom affaire bi nañ ko teg ci fair play. Mhm. sport la. tey bu ñu waxee ba gaañ fa nit du am benn njëriñ bu ñu waxee ñoom ba gaañ ñu mhm. amul benn njëriñ kon nañ ko bokk rafetal. te xam ne ah mooy bëre moom la ñu fay. Modou Lo mooy bëre moom la ñu fay. supporters yi sañse leen añ ba suur ñëw ci stade bi tàccu seen mbër ku ne nag am nga droit tàccu sa mbër. bu kenn menacé bu kenn saaga bu lan set sax kenn war koo gàddu. waxuma la ak di gàddu luy gaañ nit. ñun de leer na ma ne ñun ñi sa ci ama. yabaluñu kenn kenn kenn pour nga jël dara luy gaañ nit di ko yóbbaale ci stade ba yabaluñu kenn pour nga jël. luy lor nga di ko yóbbaale ci stade bi. ama wootewu ko tey wootewu ko suba jàmm la woote ama li bëgg xam na ko te moo koy wutali boppam. très bien. nañ leen d' accord merci beaucoup Père Tafa euh, Père Tafa Naar la woon bokk ci euh, waajuru ñi nga xam ne ñooy groupe Farmaren mais aussi am taxawaay bu am solo nekk waajur ci kii di Balde moom la seen bés doon am ak jotaay ma doon am mbégte bu baax a baax vraiment si jotaay bi di la gërëmaat beneen yoon di gërëm aussi suñu PDG borom Mbacke Bawal multi service Serigne Mor Thiam ak maa fi yëpp waa di gërëm Michel sama jigéen nga xam ne kenn la ci man. Michel Guèye waay. kooku wax dëgg yàlla kenn la ci man. di suma xarit di suma jigéen bëggal ma boppam ma bëggal ko sama bopp. Mhm. kooku suma xarit la. di gërëm sëñ Mor Thiam mi nga xam ne moo moom moom bitik sii di ko ñaanal as mbitik nag ku ko am da nga ñaan yàlla mu yokk yàlla na ko yàlla yokk moo yor boutique yu bari moo yor mbitik si sama waay la bon bon nañ ko ñaanal yàlla affaire yokk ndax suñu waay la di gërëm ASC bi yëpp mafia bi waaw di gërëm nag Khalil uh-huh. sama rakk joo xam ne ma nga ci États-Unis bàyyiwuma benn yoon xam naa fi ma teg macha allah lii trois pièces la mu yëkkati ko yónnee ma ko muy sama rakki bopp. macha allah mooy rakki Aziz Ndiaye ji xalil. xalil waaw waaw di ko ñaanal yàlla wér. booy xalil ñu ngi lay nuyu waaw booy xalil di ko ñaanal wér. <laughs> ak gudd fan fàttewu ma benn yoon. ah def na lu rafet lépp lu mu mës dugg. boole na ma ci. xalil fekk na ma mu ma tëdd sama kër di feebar dafa jooy bañ génne ko kër ga. iskay iskay kooku xam naa yëg-yëg bi mu am ci man. ku baax la man xam naa yëg-yëg bi mu am ci moom. kooku dama koy ñaanal yàlla yàlla bu mu gis lu mu ragal. amiin mu jëm yàlla na ko fa teraanga fekk ci barke yonent bi booy bu baax la waaw. d' accord alors ñu doon am bekk di gërëm bu baax a baax aussi Sayar moom it ñu wax Pikine te duñ ko tudd. muy xarit non Sayar xam nga lu tax Sayar. man du ma tudd sax Sayar ndax Sayar mooy ama. ok ciment la benn yoon lay tooy. Sayar. Mhm. amul ku muy xool. ama lay xool. ama lay gis. bu beneen mbër doon bëre sa moom ama lay gis. gisul keneen kon Sayer mag la ci ama nijaay la ci ama baay la ci ama te alalam. Mhm. fu ko fekk ndamal ama ko gënal. te ñëpp xam nañ kan mooy sayar ci Pikine kon kooku dañ koy ñaanal wér wérle ak gudd fan. merci beaucoup Père Tapha kooku nit ku baax la di ñaanal nag sama waa kër yëpp. Mhm. di ñaanal samay nit. nga xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi ba Amérique saa bu ma defee émission. ku ne woo ma di ma wax li nga wax rafet na su fekkee ne li ma wax damaa juum maa ngi ciy jégalu. bu rafetee ah nañ ko bokk ak jullit yëpp. merci beaucoup te gaañ nañ leen ñëw ci làmb ji ak ngor. Mhm. ak fulla ak fayda ak fit te gérer suñu mbër. te yem ci suñu mbër nag. merci beaucoup père keneen ku ne indil sa mbër nga gérer sa mbër yem co jàmm nañu ñu ñëw ci jàmm ñibbi jàmm ñun ñoo xewle. ñoo moom stade bi. ñun te te olof dafa am wax ko am gan tëraani. comme ñun ñoo moom gani nañ leen tëraani bàyyi yaatal leen bàyyi leen ñu féex. nekk ci jàmm wa salaam. di ñaanal Wally sekk <laughs> lii mu jublu di ko wëri. yal na ko yàlla yombalal ba teg ko ci loxo mu te yal na ko jig. amiin yaa bu nekkee lu koy jig la. yal na ko yàlla may. amiin yaa bu nekkee lu koy jig la. amiin yal na ko yàlla may. nit ku am fulla hmm. am fayda. mën a ñàkk alalam mën a terali bokkam. merci beaucoup père. am ñaan waajur. merci beaucoup yal na ko yàlla dimbali. merci beaucoup père Tafa la naar la woon. ak euh, rédaction Senbuzz merci beaucoup. kontaan naa Serigne Mor Thiam PDG Mbacke Bawol Mir service ak mafia bi yëpp. beneen jotaay ak beneen invité sur la chaîne des leaders <laughs> fii Amady. monsieur daal jar naa gërëm